wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokk yi nga xam ni yéenay seetaan Infos 15 TV yépp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaaru di leen ndokkeel ci weeru koor wu tedd wi nga xam ni ci lañu nekk di ñaan yàlla itam yàlla nangul ñu suñu koor lépp luñ ci jaamu mu nangu ko lépp luñ ko ci ñaanit suñu borom subhanahu wa nangul ñu ko tey nag dañuy waxtaan ci wàllu koor ndax koor wax naa la ni dafa nekk loo xam ni suñu borom subhanahu wa moo ko farataal ci ñun comme ni mu ko farataale ci mbokk yi ñu fi jiitu woon waaye pour ñu jëlee ci ragal yàlla mbokk yi ragal yàlla mënul am te jihaad taxawul waaye nag jihaad bii ñuy war a jihaad ci biir weer koor koor jihaad la waaye jihaadu nafs la ci xeex ak sa bakkan xeex ak sa bakkan ba lépp loo xam ne euh, sifaat xabisa la wala axlaax masmuuma mën a melokaan wu ñaaw la wala jikko ju ñu ŋàññi la nga xafe ba dindi ko ci sa bopp ci weeru koor boo bokkee ci ñi nga xam ne dañuy def sawmu xawaasil xawaas sax nga continuer bu weeru koor wi jeexee fas yéene ni nga baaxee ci koor gi ni nga xeexee sa bakkan ba baax ci koor gi nga continuer ko ci bu nekkul weeru koor mbokk yi kon xeex ak bakkan mënul ñàkk kon fokk ñu xeex ak bakkan te xeex ak bakkan dindi jikko yu ñaaw yi nekk ci moom fardu ayn la fardu ayn la ci bépp jullit boo xamante ni mu kàllaf la te wax naa la ni bakkan nag ka tifli an nafsu ka tifli in tu'mil wa tabba ala bir ridahi wa in taftimu yanfatimi bakkan dafa mel comme xale xale su matee fer nga feral ko rek mu fer waaye soo ko bàyyee mu continuer ci nàppam du bëgg a fer mukk day bëgg a continuer ci nàmp boobu sax ci waaye boo ko forcé rek feral ko mu fer kon bakkan li mu ñuy xittal yépp ñun la neex waaye bu ñu xeexee moom mën nañ ko ci jëlee mën nañ ko jëlee ci li nga xamante ni moom la ñuy xittal toujours kon nag jihaad boobu la ñu war a xuus ci biir weeru koor xeex ak suñu bakkan ba nga xamante ni lépp loo xam ni lu ñu suñu bakkan di xirtal la ñu daw ko won ko gannaaw comme nañu ko yàlla waxe wa jaahidu fillahi xaqa jihaadihi ba ja des mu ni wa bi amwaalikum wa anfusikum fi sabilillah mu ni nañ jihaad dëgg dëgg dëgg jihaad te lépp Yal ñu tek ko ci sabilullah ñu tek ko ci yoon yalla waaye ñu xex ak suñu ñu xex ak suñu bakkan ba mëna joxe suñu alal mëna dimbulante dimbalante ci wër koor wi waaye ñu xex ak suñu bakkan ba mëna bayyi lepp lo loo luy galan luy suñu koor la lepp lo xam luy ñaawal suñu koor la luy tax julit bi jikkoom ñaaw la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ni jahidu ahwaakum kama tujahiduna ahdaakum xeex leen ak seen bànneexu bakkan comme ni ngeen di xeexe ak seeni noon kon nañu xeex ak bànneexu bakkan yi comme ni ñu war a xeexe ak noon yi jaasi bi xeex ak bakkan nag du lenn lu dul xiifal ko wax naa la ni bakkan suñu boroom subhaanahu wa taala bi mu ko bindee daf ko bind ba pare ni ko waaw kan mooy sa boroom mu ne ko yow de yàlla yow a yàlla man man la bakkan yow ak sa bopp man ak sama bopp yàlla ne nañ ko duma ñu dóor ko junni at yàlla wi ñeeku ne ko kan moo la moom mu ne ko man day mën a bakkan yow yow la yàlla yàlla ne punir leen ko bu mu lekk bu mu naan ñu xiifal ko maral ko ñetti fan mu saalit suñu borom ne ko kan moo la moom mu ne ko yow yaay sama borom yàlla xam ni kon bakkan dara mënul ci moom dara lu dul xiif kon bakkan boobu nag wax naa leen imaam dafa wax ni Eh, maa laa yatimul waajib illa bihi fa huwa waajib loo xam ni li war di farata mënul mat lu dul loolu dafa ñëw loola dafa war te koor mënul mat te xeexuñu ak suñu bànneexu bakkan julli mënul mat te xeexuñu ak suñu bànneexu bakkan eh, asaka mënul mat lu baax lu ne amul lenn loo xamante ni bàkkan du dugg ci biir di ñu ko yàqal kon fokk ñu xeex ak bakkan boobu yàlla nag ni wala si na jaahadu fii na lanahdiyannahum subulana ñi nga xam ne dañooy jóg nag pour xeex ak seen bakkan ñi nga xam ne dañoo jóg pour jihaad pour def yitte pour yëgsi ci ñun yàlla ne naa leen teg ci yoon boo xam ne fa la ñuy jaar ba yëgsi ci loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni al man jahada nafsahu fillah ne nag kiy xare dëgg kiy xeex dëgg mooy ki ak bakkanam ba ñëw si ci suñu borom subhanahu wa taala kon mbokk yi weer koor bi noonu bokk na ci noon bu mag bi nga xam ni moo ñu gën a tardeel tey ci weeru koor wala lu dul weeru koor bépp xeetu jaam yàlla mooy noon boobu ñuy wax bakkan ndax ku ne xam na ni weeru koor bu ñëwee yàlla jéng seytaane ni ko toogal fële weeru koor bu ñëwee yàlla tëj seytaane kon nag taskiyatu nafs sellal suñu bakkan defar ko ba mu baax pour ñu mën a jaamu yàlla fardu ayn far far fardu ayn la ci képp bépp mu kàllaf su ko defee kon ñu war a nag def jihaadatu nafs ndax xeex suñu bakkan xibaadatun jaamu yàlla la goo xam ne wala tuxsalu li ahadin biha illa bil ilm kenn mënul nag xam foo ciy jaar pour am jihaad boobu lu dul da nga teg da nga ko teg ci xam-xam boo xamante ni da ngay xam fi nga war a teg sa tànk pour mën a xeex sa bakkan وهي فرض عين على كل معلف وحنا لنا لا على كل مكلف وحنا لنا لا فرض عين لا شيء مكلف بنك كن كنك تشينون ورا خمني جادنا شيء وعند خيرك سبكان جادنا شيء وعند تحاو سبكان فوفو لني تحاو تيجي جهاد الناس بربير كور بسبني نيوتي بنن درس بيدس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته